mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di waat eh, di leen gërëm bu baax di am mbégte teew fii ci ndimbalu sunu borom ak kàttanam di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa solution yëpp di ziar ziar ci màggal gi son bu Sanjogu Assane Top Ablaye eh, maa jigéen eh, El modu ay Aïcha ñëpp ba ci ñoom Kànjeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di leen ziar bu baax a baax di am mbégte nag waxtaanee actualité comme ni ñu tàmm di ko defee di leen gërëm bu baax ci teewlu bi di leen euh, safoo bu baax di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp yoonu màggalu jàmm yàlla nañ ci egg ak jàmm lu luñ fa ñaan rek sunu borom defal ñu ko màggal googu nag am solo di dinañ waxtaan ci mbiru Ousmane Sonko ak euh, ni ma ko tuddee. di Tip de l'été ak génn Ismaïla Madior Beek Juan Branco ak li jëm ci Pastef ak li ñuy wax naan ay plan B bu xajee rek ci waxtaan dinañ ko ci dugal bu ci xaje aussi dinañ laal tuuti ci Gabon ak la fa xew ak ban jàngat lañ ci war a def ñu fësee na ko tënk di ñaan ci màggal gi nag mu doon màggalu xewal màggal goo xam ne ni may faral di waxee dina doon solution pour que ñu régler beaucoup de problèmes ndaxte màggal googu bari na ci ñoo xam ne ay sëtu Serigne Touba la ñu ngi ci kaso bi waaw loolu lu ñëpp xam la bu ne sëñ Assane Mbacke ne Cheikh Omar Bamba Diop waa Darou Moussi wax ñeneen ñoo xam ne tey jii buñ leen doon lim du jeex buñ dee wax ci njabootu Serigne Touba wax ci Cheikh Bara Ndiaye président nag war a dem alxamis ak àjjuma ca Touba mu war doon lu ñu war a waxtaanee. ndaxte wolof day faral di wax naam ab askan boo ca teralee kenn teral nga ñëpp waaye boo ca toroxalee kenn toroxal nga ñëpp loolu nag waxin la parce que nag jamono ji ñuy màggal ñu mënoon a gis ni sëñ Assane Mbacke tey jii bu sañoon Touba lay màggalee ndaxte ay taalibeem bu sañoon daje ak moom Cheikh Baara Ndiaye tam ay taalibeem bu ñu sañoon daje ak moom Touba mooy loo xam ne képp kii taalibe mun nga wute lu ne. mais képp ki taal bi Serigne Touba boo seen rek màggal Touba lay fekk ndaxte lu rëy la ci ñoom lu màgg ci ñoom bu ñenn ñi tey ji nekkee ci kaso bi ci condition yoo xam ne du yu nu mën a nangu kon day jot le président de la république demee ñu xamal ko ni sunu njaboot ñu ngi ci kaso bi te buñ sañoon ñu bàyyi leen waaw sañoon ñu bàyyi leen. kon loolu gëm naa ni dinañ ko sàkku ci njiitu réew mi te buñ ko sàkkoo waru kaa bañ waaw waru kaa bañ na fa jaare bàyyi ñëpp bàyyi ñu bari ba ci usmaan san ko màggalu daaw gi ma nga woon ca tubaa kër sëñ Cheikh sëñ Cheikh bu ñu koy wax su xel dem ci Serigne tubaa dem ci Serigne saaliw kon yooyu yëpp lu ñu war a waxtaaneel màggal gi dafa war a doon màggal goo xam ne bu ñu ci jógee lu bari dina am ci féexal nguur gi dëgëral bi ñu nekkee ñu bàyyi ko lu tax ñu war ko bàyyi. mars deux mille vingt et un ba nguur gi nekkee ci jafe-jafe sëriñ si ñoo leen ci génnee pourtant sëriñ si danoo ñaan Ousmane Sonko ñaan waa F24 ñu may leen lu am solo la léegi nag ñooñu ñaanoon ñu may leen ñooñu ñooy ñaanaat am na kilifa kenn du ko tiiñal nag toog ak président ci penc di ko tiiñal xalif yi duñ def loolu waaye bu dee wax nañ ci ak moom njekk ji mu leen ñaanoon ci mars deux mille vingt ban may ko ko ba tax mu mën a diriger ba atum deux mille vingt njëkk googu tamit bu ñu ko ko ñaanee war na tax les prisonniers politiques les détenus politiques ñu bàyyi leen. loolu nag ci lay ñëw ci Ismaïla Madior Fall ci kàddu yu mu yëkkati jëmee ko ci prisonnier yi mu ne matunu junni ak lu teg comme ni ko FRAPP France dégage waxee ñoom Guy Marius Sagna. moom mu weddi ko moom Ismaïla Madior Fall wax ni ay juróomi téeméer la nag ay cinq cent ay quelque bu dee benn sax ëpp na kaso ku ci duggul wala sa mbokk nekku ci rek yaay xeeb limu la ca ne mais bu dee benn sax ëpp na waaye moom tey bu mënee waxee ak loolu kàddoom yooyu ñun dañ ciy am werante am luñ ci suñ xel di tey ndaxte nag mars 2021 ak tey jii ñiñ jàpp doore ko ci force spéciale dooree ko ci rebelle dooree ko ci terrorisme dooree ko ci leneen ak leneen nu ne tuddee na leen ko ay commando ak ñoomin seen yooyu yëpp tuddee nañ ko nitu Sonko yi chaque manifestation ñu jàpp ñenn tuddee leen tur yi bees ñooñu tey ji yëgagun ñun am na ñu ci génn nag dans les régions mais liy dugg moo ëpp liy génn te tey lu tax kàddu Ismaïla Madior Fall yooyu di tey suñu xel mooy frappe France dégage bu ñoom Guy Marius ak avocat Sonko yi demoon ca Nations Unies ñoom dan ne ëpp na mille et quelques te Guy Marius Sagna kenn xamewu ko caaxaan moom ak waa frappe te ban koy wane danoo jël ab liste képp koo xam ne yaa ngi ci kaso bi ñu jàppal lañ ci manifestation rek ñu ne yow diw nga tudd fii nga dëkk bis la la jàpp nii la la jàppee ñoom dañ ko def ci ab lis kon li naan wax moom lii naaw la waaye bind day des ñoom Guy Marius Sagna yamuñu ci wax ni ëpp na mille et quelque mais dañ ci teg publier ab liste boo xam ne boo dee frappe ñoom ñu wan la ko ne ñi lañu jàpp ministre bi nag dafa wax sànni mooy bu la neexee nga ni 500 bu la neexee nga ni li bu la neexee nga ni lee surtout que moom bi ñuy wax ci mbiri troisième mandat boobu mosa mën ne moom nekkatuñ ci droit ci politique lan ne loolu tax Madior man bu ma koy dégg muy wax man politique bi rek laay gis li muy wax ci Ousmane Sonko ak li muy wax ci mbiri Cheikh Bara ak li muy wax ci keneen ak keneen man politique bi rek laay gis parce que moom li mu jàng ci droit ba ñëpp jàpp ni ab kàng la bu mu ne nekk ci niveau wu naan ñu mbiri troisième mandat moom mi ko daan bañ démb naan ci ñaar la mën a yem kooku tey jii bu mënee dellusiwaat taxaw naan mbiri troisième mandat moom côté politique bi lay xool ñu xëy président Macky Sall weddi ko na ci ñaar laay yem kon waxi Madior mi ngi noonu léegi li jëm ci détenu politique yu mu wax mu ne amul Sénégal détenu politique yooyu mi wax Bassirou Diomaye Faye bu dul détenu politique secrétaire général numéro 2 Pastef kan mooy détenu politique Ousmane Sonko leader Pastef président Pastef bu dul détenu politique kan mooy détenu politique Fadilou Keita bu dul détenu politique kan mooy détenu politique ba ci Falla Fleur bu dul détenu politique kan mooy détenu parce que dafa ne ñi ñu jàpp ñi ci bari ay casseur lañu ay casseur maanaam dañ doon toj ak di yàq mais kan moo mës gis Diomaye toj yàq kan moo mës a gis Ousmane Sonko toj yàq Ousmane koy dañ ko tojal. dañ ko tojal toj otoom moom gis na ñu tojal ko mais gisagul ñun lu mu toj Fadilou Keita coordinateur Nemmeeku Tour Pastef lu dul li mu bind di poser ay question question la poser kooku est-ce que mën nga ko tuddee casseur fale Fleur doon xale bu ndaw tribunal la nekkoon di def ay compte bi kooku nan nga ko mën a tuddee ab casseur kon tey jii Ousmane Ismaïla Madior bu bëggee jàppee ñëpp ay casseur te nag ñi nekk ci kaso bi nit dof est-ce que ab casseur la délit d'opinion la kàddoom la yëkkati wax maanaam bari na ci kaso bi ñoo xam ne tey tey jii am na ci ba tey am na ci benn journal heure boo xëyee liir ko rek mooy jàpp nañu ñaar wala ñett ñoo xam ne coordinateur jeunesse Pastef wala lii wala lee ñoom la mais tey jii depuis juin ban manifestation lañ gisaat ci réew mi. bu mën a bu ay nit yàqee dara wala ñu toj dara mais ba tey ji ñi ngi jàpp kon ñi ñuy jàpp lan la leen di jàppee parce que gisaguma lu xew ci réew mi lu tax ñu war a jàpp nit looloo tax euh, Ismaïla Madior ñu ko doon ñaan mu solaat mbubbu juriste mbubbu boroom xam-xam mbubbu intellectuel ndax nangul nang ko ko mais bu toppee politique bi kenn du ko xàmmeeti kenn du ko ràññeeti li gars yi naan saful suukar saful xorom neexut a ràññee parce que li mu nekkee nii day jeex parce que ministre de la justice bi njëkk ko fi doon te du ko mujjee doon mais ëllëg nettali ba loolu tax bu nu sañoon bu ñëwee di ñu wax mu wax ñu loo xam ne ñun dinañ ko mën a téye ba ci li jëm ci compte max bi Ousmane ko ñu ne daan nañ ko mu ne mbir mi dafa définitif atte bi ñaari at yi ci mbiri Adji Sarr kin doon toppee viol teg ci teg fitna jigéen ñu dem ba egg ci moom ci corruption de la jeunesse corruption de la jeunesse boobu ñu bari firi nañ ko jàpp ni sax Ousmane Sonko toppee ko corruption de la jeunesse sax tooñ ko la parce que san Sonko liggéeyul woon Adji Sarr maanaam toppee woon ko Ndeye Khady sax moo gënoon a jub parce que Ndeye Khady moo doon liggéeyloo Adji Sarr mais Ousmane Sonko lan la séq ak Adji Sarr ba mën ko corrompre parce que booy corrompre nit ci dara. mooy mun na am nga jël xale di ko liggéeyloo ci anam goo xam ne yoon nangu ko ñu ne ah xale bi de da jëfandikoo coonaam ngir di ko sant loo xam ne mun na am du yoon. loolu tax même corruption de la jeunesse suñu xel di ci tey ñu dem ba bis ñu jàpp ko ñu ne contumax ba tëb na moom mu wër dëkk bi naan contumax ba tëbul waaye loolu lépp du ñu bett man maa ngi koy delloo rek ci ni politique bi mooy wax alors ko moom waroon na jéggi politique. même si bu doon Ousmane Sonko condamné nañ ko daan ko pour man yoon moo ko war a wax ñu may ko les voies de recours mooy yoon yi mu war a jaar def ay appel ba lépp jeex bu dee ab juge moo taxaw nag mun a Ousmane Sonko mi li ñu koy daan dagan na te daan bi war na ko mën a wàccoog moom bu boobaa ñun ñu comprendre parce que on ne peut pas être juge et partie moom bu nekkee le ministre de la justice mais daf fi nekkal pour justice pour ñëpp moom warul dem ba Jeune Afrique di àtte Ousmane Sonko. même bu ci xamee dara wala mu mën ci dara sax mais daf ci am loo xam ne bu ko xel nangoo ngor da koy bañ bu ko xel nangoo ngor da koy bañ te àddina des fois li may faral di wax ne nit ku ne war na am lu muy desal ndax di bu ëllëgee ñu mën la setal kon taxawaayu Ismaïla Madior lu jar a bàyyi xel la dafa am nag benn kilifa bu mu musa wax ma ni ko juróom benn weer ci ginnaaw ma laaj ko ma ni ko Ousmane Sonko coono bii muy dund lan moo ko waral qu'est-ce qui passe réellement mu tuddal ma turu ay kilifa. na ma ñaar ñi tuddul Macky Sall nag waaw bi muy tudd tuddul Macky la mais dafa tudd yeneen kilifa yi yoo xam ne ñu ngi ci réew mi mun ma ñaar ñi ñoom ñoom mere Ousmane Sonko te danoo bëgg a régler seen problème ak Ousmane Sonko mun a coonaay Ousmane Sonko mu wax ma loolu ko man ko lan lan lañ ci jublu mu ne après mu jox ma ay explication m'a parlé de beaucoup de mais bu ñu gisee ni mbiru Ousmane Sonko di doxee ñu dem ba bis ñu ne euh, tëj nañ ko jàpp nañ ko ak communication bi ciy tegu mooy. dugg na euh, kaso mi ngi grève de la faim non non xëy na ndekki jamono ji Ousmane Sonko ñi naan day faju dafa war a génn nan ko may liberté provisoire mais yow à chaque fois boo xëyee ñu gis ni di ko enfoncé di ko enfonsé mel na léegi dañ ne waa ji suul nañ ko waaye nan ko maasale mais loolu pour man dañ ci échec échec boobu mooy bi ñuy jàpp Ousmane Sonko di taspartem dem ba di dindi ay photoom dem ba ne Ousmane Sonko nekkatul sax candidat mënatul jiite dara ci réew mi dem sax ba ne raje nañ ko ci list électorale yi seetloo mbir mi nu mu gaawee lépp ci weer ñu taxañ wax naa ko ci chronique bi ñu doog a jàpp Ousmane Sonko mooy lavage de cerveau la ñu doon defal mooy waa ji ngeen topp waa ji ngeen yaakaar waa ji ngeen jàpp ni mën na jiite réew mi waa ji mënatu fi doon dara mënatu fi tekki dara. comme ni ñu defoon xalifa Ababacar Sall rek mënatu fi tekk dara loolu tax bu ma gisee xalifa di maslaa gaa yi ndeysaan nga xam ne àddina fàtte moo gaaw mais tey jii ñu jël loolu lépp di ko teg ci kaw son ko boobu ñi ñi gëmal ni waa ji ngeen topp yaakaar ko mënatu fi doon dara mënatu fi tekk dara yemuñu ci politique boobu lu tax mu graaw du rek ñi nekk ci nguur gi ñoo ko taxawee wala di ko doxee wala di ko waxee. Ismaïla Madior fan la waxee mooy Jeune Afrique Jeune Afrique mooy journal bi dajaloon aji Sarr ñëw puudar ko takkal ko ay garafaas ak faar ko mu ñëw toog jox jox ñu jëmm joo xam ne boobu ñu ngi koy defal communication ñu ngi koy defal communication journal boobu lan la deful pour que ñu gën a enfoncer Ousmane Sonko jàppale Adji Sarr communication bu kenn fàtte image yu Jeune Afrique yooyu. tey jii ñu gis ni Ismaïla Madior dem na fa Jeune Afrique kan mooy seen directeur de publication bu ma jur mooy Ahmed Ben Yahmed doon ab kilifa boo xam ne tey jii fa la Ismaïla Madior demee di wax mais kooku weer ci ginnaaw wala ñaari weer ñëw na ci ab rajo fii ñu invité ko ci ab émission bu mag bi mu ñëwee mbiri Adji sar nanguwu ci wax parce que foofu li liñ ci def yëpp fi mu mujj xam nañ ko ci corruption de la jeunesse mais bi ko journaliste bi laajee mun naa tudd émission bi grand jury RFM ñu jël ko par téléphone mi expliquer mais dafa ne Ousmane Sonko lépp luñ ko jiiñ ci li xewoon mars deux mille vingt et ak tey jii mën nañ ko ko toppee ci appel à l' insurrection trouble à l' ordre public Ahmed Ben Ahmed di enfoncé Ousmane Sonko ci émission bi. balaa loolu Robert Bourgi doon avocat boo xam ne ab lobbyiste la moom tamit ñëwoon na ci émission boobu waxaat loolu man boobu ci laal sama xel tey ma ni am na lu ñuy préparé jëlatuñu ay nit yu nekk ci réew mi mais ñi ngi jëli ay nit yu nekk bitim réew ñu commencé dugal dara ci bopp sénégalais yi mooy léegi waxatunu viole bi parce que viol amul waxatunu mbir Mame Mbaye dafa oyof neexul téye parce que dafa oyof léegi. il faut ñu jël leneen yan ko Ousmane Sonko mais boo xoolee communication bu Bourgi ak bu Ahmed Ben Yahmed bu bi jiitee Jeune Afrique bii ñuy wax Ismaïla Madior doon waxee mais ci émission bi yëpp dafa enfoncé Ousmane Sonko jël li xew mars 2021 ak mars ak juin ñi fi deew ak li fi yàqule yëpp mu yan ko ko loolu nag bin génnee après gis procureur taxaw jël loolu lépp ñu yan ko Ousmane Sonko jël ko tëj ci kaso bi ñun bettuñu parce que boobu am na ci li ñu doon préparé ci côté communication parce que rôle bi yenn journal yi nekk bitim réew di jouer contre Ousmane Sonko loolu aussi il faut ñu nànd ko lool tax bu Ismaïla Madior Fall demee foofu ne acte bi définitif na du ñu bett mais ba léegi man dama koy jàppee politique rek mu koy jàppee politique du ñu bett parce que Juan Branco ni mu ko dajee léegi compte max ba fan nga koy dugal mais ba léegi ñu ngi ci logique gu mooy waa ji ngeen topp parce que dafi am lu xew ci diggante bi ñoom bi ñuy jël Ousmane. di ko jàpp di ko téye danoo jàppoon ni dara du xew dëkk mën na yëngu mais biñ gisee nit ñi na tekk ñu dem ba jëmi jamono ñu fokk ni mën nañu fàtte waa ji mais tey jii jamono boobu ci la nit ñi gën a wax ci moom ci la nit ñi gën a gës ci moom mais ci la nit ñi gën a baax ci moom waxuma la sax ñi bëgg Ousmane Sonko bokk Pastef mais ñi bañ Ousmane Sonko di yàq deram ci deram sax la ñuy dund <laughs> maanaam ñi bañ Ousmane Sonko di yàq deram ci deram la ñuy dund parce que nag booy tuumaal ni di ko tuumaal bu mu dugg kaso nga mën ko may jàmm mais tey jii seen journal ñoom yi ñu yaakaar journal yi ñu yaakaar fii ñu xëy di ko revue de presse ku ci xëy boo publier wul Ousmane Sonko ci lu baax wala ci bon pour yow doo jaay seen seen yi ñu yaakaar ci internet bi ku ci waxul wala nga bind ci Ousmane Sonko pour yow doo jaay pour man nag loolu nag moo leen waroon moo waroon a tax yàq gi ñuy yàq Ousmane Sonko ñu ba parce que der der bi ngay dundee boo koy yàq yàq ko nànk ndax da nga ciy dund waxu olof laa wax de dangay ngay gis ab journaliste sax invité nit gis nañ ñu invité fi Alioune Tine mais Alioune Tine di wax ak journaliste bi di ko ba ne ko ñëw mu fi pour def procès Ousmane Sonko parce que pendant presque plus d'une de temps laaj bi yëpp ci Ousmane Sonko parce que dal lay woo nga ñëw toog. ñu lay pousser pour nga dal ci kaw Ousmane Sonko ku mel ne Alioune ak expérience bu mu am jaar-jaar bu mu am émission wu deux heures de temps nga bëgg ko consacrer Ousmane Sonko alors que li mu mën a jariñ Sénégal ëpp na Ousmane ji Afrique di boy fu ne Gabon coup d'état yi Niger Alioune Tine ak expérience am nga woo ko ba ko pour ba Alioune ak ni mu yaroog ni mu dalee bokk na ci ñi ma gën a respecté ci réew mi Alioune dem ba ne la ñëw ma pour def procès Ousmane Sonko nan wax ci leneen. parce que bëgg nga ko pousser pour mu lii mais comme yow da nga dëkk ci yàq deru Ousmane Sonko léegi di yàq deru nit di bëgg a dund ci deram c'est dafa graaw loolu nag moo ñuy yóbbu ci waa Pastef yi ñoom tamit ñu xam fi ñuy taxaw bi nga àddina dal dafa baax mbir mi fi mu toll du mbiru xët-xët du mbiru rayante du mbiru génn di wax naka sudul noonu wala ngay def naka sudul noonu non non di nga ñi jiite Pastef nii booy yi bëgg Ousmane Sonko les sympathisants man dama gëm ni sax ñoo leen gën a muus booy ci internet beeg stade yi nii booy jàpp nañ Ousmane Sonko génn ñu xeexu nga ba ñëpp naan réew mi lu tax ñu na tekk booy dem ci stade bi génnee la type de l'été type de l'été boo déggee ñu koy wax été bu mosaan am waykat yépp dañ daan génnee ay way yu bees ay kaset yu bees jamono bi kaset bi am ñu daan organiser le type de l'été ban moo ci gën a neex comme yooyu amatul type de l'été bi mënuñ ko jàppee sonkorisation bi xew ci réew mi xew ci stade yi dox loolu neex loolu waaye tamit kenn mënu ci dara xoolal bis bi ñu ko njëkkee tere ci Amadou Bari dóor fay lacrymogène dafa mel ne li naan bu la yàlla yeneen taal say matti noonu la lay xàmbee mbir mi ci la gën a tàkk ñu koy def ci stade yëpp te kenn mënu ci dara dem ba kilifa sax pour mu doxantu sax ay yitteem dox ko ci jàmm ak salaam sax fu mu egg ñu sonkoriser ko di way sonko sonko namm na la gars yi def nañ pexe bu ne ci àddina lu Pastef mës a teg ak ay militants sympathisants yu baare ko mais bii moom dañ ci mënul lu bari parce que doo xam ñan la parce que parti bi nga ne amatul Pastef da ne amatul ex Pastef man dama jàpp ni Pastef mi ngi fi ba léegi parce que ñi ngi leen invité ñi ngi toog ci médias yi teg ci dugal nañ recours paraît pour que ñu dindi tas goog ñu tas seen parti mais teewul parti bi mi ngi fi ba léegi léegi nag ñi naan ex Pastef ak yow di ko bind ci journal des fois ñoom sax bu comme Pastef ex la waruñu woon bind ci Pastef man loolu laa gëm ñiy bind ci journal ak yooyu. mais Pastef excellent lu amatul loo ciy bind loo ciy wax ba di leen utal ab plan B moom ni ko assen waxee ah, looloo tax des fois c'est un peu paradoxal mais am na ñoo xam ne dañ koy neexalee nguur gi am na ñoo xam ne bañ gi ñu bañ Pastef moo indi loolu te yow bañ koo xam ne ci deram ngay dund kon boo koy bañ bañ ko nànk waa Pastef yi ñu wax waxu numéro. deux wala plan B bu Pastef Pastef kan la ñuy jàkkaarloo nguurug Sénégal nguur gi ñuy jàkkaarlool ñoom danoo waxagum seen candidat yow le président sortant bokkul moom mi war a défendre son bilan euh, xool ni muy téye nguuram moom waxagul kan mooy candidat moom Macky Sall kon génn bi jàll Diop génn Diallo Diop génn bi mu génn dem di wax mbiri plan B. même loolu buñ ko waxtaanee woon ci biir Pastef parce que nag ñoo xamante dëgg mën na am Pastef ñu ngi koy waxtaanee ci suuf te buñ ko waxtaanee ci suuf war nañ ko waxtaanee buñ ko waxtaanee wul war nañ ko waxtaanee mais du lu ñuy wax ci suuf yëpp la ñuy ci kaw. kon foofu Diallo job daa may tànk loolu mënoon na ko téye ba ci kanam ban xam kan mooy candidat wu Macky Sall fekk xamuñu kan mooy candidat Macky Sall waa Pastef waruñu génnee kan mooy seen candidat nan jàpp ci usmaan Sonko A ba Z. parce que logique bi leen nguur gi bëgg a dugal ay Ismaïla Madior Fall lii bi àtte bi définitivement euh, rajje nañ ko yooyu yëpp danoo bëgg a dindi Ousmane Sonko ci bopp yi ba du bokkati ci plan wu waa Pastef bu boobaa waa Pastef li ñu war a def pour génne Ousmane Sonko duñ ko defati maanaam bu ne woon am na plan B Pastef xam ne am na benn journal bu xëy bind euh, Diomaye Faye bind euh, Guy Marius Sagna bind kii Mm. biram Souley mais est-ce que Birame Souley daa mës a toog mu ne man maay numéro man maay plan B dama kaa bëgg a doon foo ko laajee mu ne sul plan A ba Z Ousmane Sonko la nga laaj Ayib Daffé juma jomaay ni ma ko xamee nekkul ci loolu te jomaay tey ji génn ci kaso bi dellu ci njabootam moo ko war a gën a ñor ndaxte balaa nga naan naam da nga fay ne situation bi Ousmane Sonko nekk la Ousmane jomaay fay nekk. kon débat wu numéro 2 ci Pastef Guy Marius Sagna moom dafa jàpp ni seen plan A ba Z Ousmane Sonko la léegi ñi bind ba di leen utal plan B ñooñ la lañ ci jublu mooy jaxase Pastef dugal fa benn débat boo xam ne waa Pastef au ñu nekk ci wér-gu-yaram Ousmane Sonko ak fexe nan lañ koy génnee léegi dañuy nekk ci débat wu kan mooy wutu Ousmane Sonko ci bokk Pastef nan ngay doonoo ku deewagul te Ousmane sonk foo ko laajee mu ne man la te man maay doon candidat bi ndaxte amagul atte bu définitif bi dàq Ousmane Sonko ne mënut a doon candidat léegi nag ñooñu génn di wax noonu man gëm naa ne Diallo Diop de bonne foi la waxee parce que c'est un intellectuel am na xam-xam yàgg na ci am na expérience mais ci émision bi Diallo Diop wax loolu rek lan dagg ci émission bi mais Diallo Diop wax na lu bari mais lu lu tax émission graaw da ngay wax lu bari. ak circonstance ak contexte bi nga doon waxee ñu dagg ci tuuti ne diw moo wax lee wala ñu xëy titre ko ci journaux yi mais yàlla man dafa dogal bi ñuy rediffuser émission bi dama demaat déglu Diallo Diop mais daa am ñu ci rebondir jàpp ci pour que mën a yëngal Pastef mais ma heureusement waa Pastef danoo muus danoo intelligent ndaxte ñi ñuy utal ay bëgg-bëgg yépp du kenn ku ci taxu mu ne dama bëgg a nekk plan B bu Pastef loolu tax Pastef danoo am intérêt. jël Ousmane ko mu doon seen plan A ba Z xamul tax booy bëreek nit te xamagoo mbëram bul samp sa mbër lanc bi daan mbër kenn du ko sàq mi ci géew loolu la olof yi wax. pourquoi léegi waa Pastef tey même bu ñu amoon plan B pourquoi ñu war ko wax tey parce que Pastef amul problème mu parrainage <laughs> seen député yi am na plus de treize kon ñoom parenage gàllankooru leen leneen gàllankooru leen pourquoi ñoom ñu bëgg a créer seen bopp problème bu amul. wala ñu bëgg leen a indil problème bu ñu amul même dans les essences passées bu dee dañuy waxtaanee loolu sax waxtaan boobu waru génn ba ñu nekk ci nguur gi di ci jafandu pour bëgg a yëngal passé li Abbas Fall wax mooy dëgg fi na nii te Juan Branco xaw ko jund ci ni ñi ngi waxtaan pour ko xool na lay génne situation bi ak Ousmane Sonko loolu lépp lu mën a ne la lu mën a ne la parce que ki nekk ci kaso dañ koy lijjanti mais du lijjanti boppam léegi nin mën a lijjantee ba génne Ousmane Sonko ci kaso bi fi mu ne nii lool moo war a doon yittee waa Pastef waaw loolu moo war a doon yittee waa Pastef nan lañ mën a génnee ba mu jotaat wér gu ci jàmm comme ni ñuy tuddee wér gu mais bu ko génnaale woon sax est-ce que sax dina am sago wala boog mu egg ci sax do naan day nekk candidat am déet pour man li ñu war a sëpp seen bët di ci bàyyi xel mooy génne Ousmane Sonko ci kaso bu génnee ci kaso faj yaram ñu xool aussi tamit nan lay bokkee ci élection mais débat wu plan B bu Pastef loolu mën nañ ko waxtaanee en interne maanaam ci suuf mais loolu du wax ji war a jug war a doon un débat parce que bi mbir mi jugee da ngay xool journaux yi farak nguur gi maanaam journaux yi naan ex Pastef yooyu farak nguur gi ñoom dañ ko à chaque fois dañuy agité pour bëgg bëgguñu gëm loo loolu alors que ñoom. ñii nguur gi yónni pour ñuy wax loolu mais ñoom nan wax ci candidat nguur gi Macky Sall mi ne xam ne Ousmane Sonko taxawul fenn mën a man duma ma mais Macky Sall dafa taxaw mën a man du ma léegi nan wax kan mooy candidat mais bëgguñu yóbbu ci marché muusante boo xam ne kenn xamuñu fi mu ñu jëme looloo tax te tey jii li faq seen bët ti dal leen mooy le type de l'été li may wax sonkorisation bi ci dëkk bi sonko sonko bi c'est un problème kenn mun ci dara kenn xamul fu mu jóge mais kenn xamul aussi fan la ñuy koy freiner parce que xamoo ñu ko organiser te aussi defuñu ab way xanaa way nag du dellu ci réew mi kon mbir mi mi ngi noonu bëggoon nañ ñëw ci Gabon bu dee ni waxtu wi jotul Gabon moom la fa xew exemple la war a doon rek xëy tëj internet hmm? <laughs> na ay observateurs internationaux du ñëw saytu élection yi def couvre-feu na benn journaliste dugg sama réew xëy joxe say résultat wu bopp mu jur li mu jur waaw comme na ci ñeneen ñi jàng rek na ci ñeneen ñi jàng na xam ne bul la jiite la da laa dénk te li nga dénk moomoo ko waaw li la dénk moomoo ko da ko bokk ak euh, nit ñi ñi ci bàyyi xel bu baax di ñaan rek jàmm ci sunu réew ndaxte nag li ñu di toog di wax mën na am jà jàmm ju ñu am moo ñu ko indil am na ci liñ doon ne lii duñ ko mën kon ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp dem màggali ci jàmm ak euh, salaam waaw di gërëm ñëpp di leen sant di leen euh, jéggalu di ñaanal Cheikh Bara njaay mu génn ci jàmm am nañ ci yaakaar ah waaw génn ak wér waaw lu ne mën na xew diggante xàcc ak dóor yow yàlla xaj na fa ah ba léegi ñu ngi njort ni war na mën a génn dem màggali dem faji yaramam parce que màggal gi namm nan ko te amoon na fa solo ah ci taxawaay waaw am na nit ki da nga koy seedeel li nga xam ci moom waaw màggal gi dafa daan nekk di joxe di joxe <laughs> bii ñibbisi di yor dara <laughs> Cheikh Bara ah màggal gi lépp lu mës a am ca la koy def ah waaw kon nan ko ñaanal rek mu génn ci jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal weer ñëpp di jégul ñëpp di baalu àq ñëpp El Hadj Modou juuf ak euh, toog ak Ablaye ñu doon jàpp ci liggéey bi Omar bun Xataab gi nekkoon ci kàddu gi di gërëm ñëpp di leen euh, sant di ñaanal ñëpp jàmm euh, boo màggal